warti kaa bëgg naa leen doom yaay diya samb mbokkum yaay sabara ku jëndoon sa waay del nii moom deful dara sax ku de ku de moo ko dugg exactement association je trouve que ni def lenn rek laa dégg ngeen koy wax laa xam ne laa ko laa laa xamee ni blâmé naa ko tuuti takk suuf benn jigéen waru ko nangu gis na takk yàlla dafa bëgg ñu siiwal ko un mariage de ça doit se savoir ku lay jéem di la gis nga kaaw mi mi noonu la demee woon ma mi mi aussi problème boobu la amoon góor gu ñëw di la takk naan laan takk suuf xamal ni yaa anguille sur am na lu muy nëbb yow na boo ñàkkee fayda xamoo sa valeur xamoo sa bopp mariage ñu war ko siwal say mbokk xam ko say mbokku jëkkër xam ko say xarit xam ko ngay nangu ko lay takk-takk suuf yow rek la yow la rek loo am jëlal vraiment gisuma góor bu ko jar ci àdduna même boo doon ah, président ñëw du ma bëgg mais ñi ñu takk suuf bëri nanu de dafa siiwul rek bëri mais ñoo xam ñoo xam seen problème la takk suuf boo gën a ba léegi doom ji est que di ko def doomu suuf doom ji di ko def doomu suuf doom ji ci judd nag di ko def doomu suuf parce que doom fu mu judd nañ ne kii mooy papaam kii mooy yaayam xale bi il a besoin d' aller son père la famille de son père de les connaître ou bien et tout mais pourquoi takk suuf faut faut faut utiliser sa tête man xaw ma lu xew sénégalaise lan moo leen dal yàlla daf la ko toll ne Azusa elle a pas besoin de faire ça. même ki amul dus amul dara tekk amul sax war waruloo nangu takk suuf man kan mooy may nangu ma ngay ñëw di ma takk naa ma takk tegal sa baaraam maa am na ñuy doog a ñëw naan kali récapitule da ngeen di gaaw di fekkee live bi nag mënuma tout le temps di répété sa micro s'il la voix daa mel yaa ngi si kàttan Adiouza waykat moo nekk nii si ginaaw xam ngeen ko non moo doon génn ak jëkkëru jàmbur nag moom it waaw est que tamit est-ce que du àq jabar jàmbur bee dal moom it que lii du tax xale jigéen ñi bàyyi di suufu jëkkëru jàmbur yi c'est le karma aussi tamit de c'est le karma ah, a yéen nga wax sànq ba léegi xale bu jigéen bi ak góor ki Adiouza tamit est-ce que du moom it dafa topp jëkkëru jàmbur encore encore bu leen fàtte foofu tamit parce que jëkkëru jàmbur bala sant wala ah mais nag bu ñu bàyyee jëkkëru jàmbur yi. mais tamit bu ñu bàyyee jëkkëru jàmbur yi. waaw jëkkëru jàmbur du mën a bu ñu bàyyee jëkkëru jàmbur est-ce que ñëpp dinañ sëy. waaw fii ku fi si mooy si mooy jëkkëru jàmbur mais affaire yi il s'agit pas de bàyyi jëkkëru jàmbur mais au moins moom li mu def mooy que ne génn na ak nit xam nga fan la doon méttee ñu ne Adji Ouza dafay dem di génn ak benn waay boo xamante ne moom day dem di tendance jabaru waay ji boobaa mën nañ ko teg toox mais moom nekk na ci suturaam am confiance ci benn nit woolu kooku kooku wor ko wor bu ñaaw bi donc elle n'a rien fait elle est juste victime ci histoire bi fii ñëpp ay génn ak jëkkëru jàmbur yi waaw. kon ba ñaareel euh, xewee ba léegi votre combat. notre projet notre combat waaw waaw. ah ma chérie jullit demee ba am droit ci l'islam muy suñu diine am droit takk ñeenti jabar jëkkëru jàmbur amatu fa place. Ah. parce que ñun loolu suñu diine la jëkkëru si la buñ ko que. buñ ko defee neexul kenn neexul kenn kali. neexul kenn ba ci seen jàmbur parce que man parce que ah, ma neexul neexul amul kenn ku kenn ku mu mais su ma la waxee loolu. tey boo waxee xam lañ lay lay indil ci kaw bu leen arrangé mooy ñun ay julit lañu. suñu borom moo ko digle Seydunaa Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo santaane ñun ay jullit lañ am nañ droit takk ñeenti jabar léegi ñeenti jabar yooyu nga am droit takk mooy da am sa ci biir kër doxaan ki nga xamante moo war a nekk ñaareel bi ñaareel bi mënoo ko mënoo koo takk te doxaanoo ko parce léegi dañ lay may sa doomu nijaay day sëy ngay doxaan da ngay doxaan man li ma bëgg mooy booy doxaan nga teg ko ci yoon teg ko ci leer yow mi ñuy xaan nga bañ a ñaawalaate bañ a kokkaliwaate parce que dafa bëri jigéen ñoo xamante ni dañ dañ leen di doxaan ñuy ñaawal ki nga xamante ni moom mooy jabar ji biir kër gi loolu nag dafa bëri góor ñoo xamante ni dañoo mën a fen ndax dañ naan seen kër bi ñuy doxaan waaye ah aawa bi de loolu moo tax nag léegi nag ki nga ki nga xam ne moom nga xamante ni moom ngay sëyal ci biir kër mu di ko ko ñaawal il faut arrêter ça c'est pas ah, bien ngi ñëwaat daa am ñuy a ñëw di laajte nu bi demee ajuza moo doon génn benn waaye bu siiw bu nekk ci tele yi foofu Sénégal bu tur bi commencé buu bu ngeen jàppee daal buu yu gën a siiw si Sénégal ñaari buu yu gën a siiw si Sénégal te semaine bu ne ngeen gis leen ci palaatu tele yi muy ñett yoon muy ñeent yoon bu ci juróomi yoon ñu ne xojju toog ci kaw télé di wax ñaari buuy daal kenn si buuy la man nag duma ne buu wala buu am na buu xees ak buu bu xeereer <laughs> ay buu yi jabaru buu yi duñ nelaw tey jabaru buu yi duñ nelaw tey moo tax bëgguma tudd buu yi pour le moment mais de mën naa jékki rek teg audio buu de baat bi baat bi moom buñ ko déggee ñëpp dina xam buu ban la léegi Adiouza di génn ak buu buu dem ba proposer ko takk suuf ajuza nangu ñu ànd jël avion ñëw ba bitim réew fii ci France yaayu ajuza ajuza ne yaay kii mooy sama futur borom kër maire bi daf ñaan ñu ñibbi senegal ajuza tamit jël bu présenté ko xaritam bu mu jàppee xaritam benn baqal la pour ne ko sama xarit bu jigéen man ak bu nar nañ def mariage fii ay fan yu neew mais mariage yu suuf la gars yi dem ci benn endroit toog lekk naan waxtaan ba naan ah loolu loolu loolu la sama aju zaase rek ah yéene woon naa la ko ñu dem ba ci biir ñuy xaar projet bi diggante ajuza ak bu benn xaritu ajuza tamit woo ajuza daal di koy yónnee ay photo photo yi ngi fii xaritu ajuza boobu yónnee ajuza ay photo di ko won nekk buu ak sa xarit boobu di muuru ndekkee dañuy génn ensemble ah problème yi door na de léegi buu si boppam ba ko ajuza xartale ñuy saagante bu dafa yëgal ne que takk bi ma la bëggoon takk teg naa ko si suuf jàppal ne sa xarit bee ma gis gis naa ne moo la gën a yiw moo la gën a doon nekk nit man kooku laay takk bientôt cooli nee na kur audio yooyu ak yi nag ñoo teer si si man ma yaakaar ne nag ñun defuñu live bi pour yàq Adiouza mais peut-être nit ñi dinañ ci jàngat bu dee njabootu xale bu jigéen bee semaine prochaine peut-être bu ñëwee bëgg takk xëy na nijaay yi wala tante yi dinañ seetaan dinañ ne bu yow duñ la may sunu doom xaw ma nag ça dépend nag. léegi loolu la ñuy jàngale lan ngeen gis yéen da ngeen gis buu mooy workat bi wala xaritu Adiouza bi mooy warkat bi. wala ñoom ñett kan moo si gën a nekk daal koo xamante ni yaa sa bopp man de damay jàpp wax dëgg fa yàlla ku góor ki def dara nag man damay défendre góor yi de bakkan jàmm bëgg choisir comme Adiouza ak kee bokkuñu nday bokkuñu bàyyi yaa ngi génn ak Adiouza dëgg la am nga projet ak Adiouza dëgg la mais boo jékkee-jékkee nag sa bët bi ak sa xel mu dal mi kee la la choisir pour soxna am nga droit choisir kee ah nañante dëgg de man boobu man dof bi man la fu parce que jabar dañ koy tànn new ma Adji Sarr dafa bon waxuma ko mais yaay xool lu dal sa xel nga ñëw tànn pour ne kii nga bëgg ëllëg mu nekk say yaayu doom des na kay peut-être bu dee bu ñëw na si xale bu jigéen bi pour ne dam la bëgg def soxna ëllëg xale bu jigéen boobu moo waroon rejeté ne man awma si àdduna ku dul Adji Sarr sama nit la sama doomu nday la sama xarit la boo ko mënta takk man du yaa may takk parce que day ñaawi mais tamit xëy na tamit lu bar bi bëgg loolu la mbëtt bi bëgg xaritu ajuza bi tamit dafa dafa ñee ajuza si buu parce que buu mu ngi si télé yi moom it tout le temps rek buu buu buu buu xam ngeen buu. mbëtt mi bëggul lu baax de. kan ah? mi bëggul lu baax de. gis nga ñoom ñaar bu ñu sëyee ñaari xaj la doon bu ñu amee doom mu nekk kuti lu leer laa lay wax. Ah. ñoom ñaar bu ñu sëyee ñaari xaj yu sëy la ñuy doon bu ñu amee doom mu nekk ay kuti ay kuti yu ndaw ay chihuahua ñu ah. bon lañ ñu ah. yées lañ ay ah. warkat a ñu daal dul toogal waay léegi ndekk Adiouza lii la xamoon bu yàgg ba wéy ne laa lay nammee te na namm bu oh nañ dégluwaat wéy bi parce que man yow lu la buur yëpp def nit ñi di la jooy. ak Isa yabul nit ñi de. yow yaa ñu moom yow yaa ñu poñe yow. man nan laa leen ay audio bu laa baroon. ay bu dee clip bi la baron et moi si sama numéro whatsapp mooy yow la baron la baron saaga ay ndey di xëcc di xëcc hmm? fulaaru xaritam bu jigéen bi ah mais attends lii attends eh, audio bu ak Adiouza loolu gën a dee léegi yow la saf mais yow prépare toi lii bu dee clip yow bay boo pare yow xool un kon kële bii ni def na un an si ginnaaw ah. Mm-hmm. way bi yàgg na tamit. nga ne nga xale bu jigéen bi. Uh-huh. nga ne xale bu jigéen bi mooy lépp. man daal xale bu jigéen bi moom daal elle est fautive parce que quand même dafa war xaritam Aziza xaritam la nit ku dem bëgganteeg nit ba présenté ko ay famille am ba ñu war a marié vraiment xale bu jigéen waroon na fi bàyyi kooku très sincèrement. wor la waa ji itam kenn rawu ko parce que moom il a donné sa parole il est allé voir la maman de Azouza ñu waxtaan ba mu jox ko parole am ba mu ne day takk. t'as parfaitement raison. da nga war a indi fii bu. exactement comme ñaari bu yu siiw ñoo nekk Sénégal. te xel yàlla xel yëpp ci ñaari bu yi lañ dem muy Boubacar Diallo dama yàlla jégal ak ak ak man bëgguma di tudd turu jàmbur parce que loolu tooñ la comme nee na nag bu la wax te ci ay télé la ñuy liggéey te dañuy génn télé te dañoo siiw ñëpp xam nañ ne ñaari bu yi lañ fi xam yu siiw la wala wala wala wala wala Boubacar Ndour. wala Boubacar Ndour man bu ma tudd turu jàmbur parce que du du du respect tooñ la. mais nag nañ ko téegal mu téegalu. boo mënee Adji Sarr di wane ay photos boobu ba léegi di teg ay audio ki nga xamante ni mooy le pire ennemi le pire poids poids. ngeen a bugaan kay la bugaan kay tàllal leneen lu dul nobante jamono ci. bu eh, eh, ay xaaral ma noppi bugaan day day kii damay nekk leen. non vraiment vraiment leneen lu dul loob. jëw nañ la ba doyal. comme <laughs> a ngi naan yow yaa ngi naan buub su nga xam xaw ma lan maa ngi dégg laay bi ba ma duggee sama kii dinaa leen dégg. Sénégalais waaw xam naa yaa rek. waaw daal man daal ñu naan clip la ñuy naan li ci mën lu ci mënti xew daal de toutes les façons ñun joxe nañ li nga si ah. lii xaar ma dafa gum nii ma wax si lii parce tamit xaar def nii en attendant ñu ne ki nga xam ne mooy président Macky Sall te doon jóge Maroc ànd ak soxnaam di ñëw Paris démb. non si avion bi ñu bëri gis président Macky Sall ak Marème Faye Sall di leen nuyu. non la voix tëj leen seen micro. ok. wasika bëgg naa leen doom yaay téye sàmb mbokkum yaay sabara saaja ku jëndoon sa waay ne nii